<laughs> ci occasion bi ngeen ñu may tey pour ñu waxtaan ak sénégalais yi parce que yaakaar naa ne nit ñi dañoo bëgg a comprendre maintenant dafa am ñaari mbir euh, facture yi baax na wala baaxul wala dafa am arnaque ak courant bi cher na dafa am différence actuellement ni kenn ku nekk am nga compteur boo xam ne mu ngi sa biir kër mooy natt li ngay lakk moo xam yow nga am woyofal moo xam nga am compteur classique donc ñun dañu la defal sa facture am nga possibilité vérifier ko maintenant nag si facture bi dañ lay wax ne yow bi ñu la mujjee relevé yaa ngi yemoon ci index bi maanaam ci numéro bi tey relevé nañ la bëj beneen numéro ñu xool diggante boobu lan nga fi lakk ñu ne la nangami kilowattheure la nangami kilowattheure boobu nag dafa am lu muy jar mais moom jarul benn prix teewul fenn mi ngi mel ni rek tey jii boo demoon si boutique bi ñu ne la siam bi lii mooy prime parfumé lii mooy prime gros bi lii mooy prime mm-hmm. donc consommation bi dañ ko teg ci ñetti anam ñetti tranche la ñuy wax mu am tranche bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne presque làmp kese la ñuy taal ak ventilateur wala lampe kese ak téléviseur ñu seen consommation tant que ñu ngi yem ci tranche bi ñuy wax tranche sociale mm-hmm. mu toll ci téeméer ak juróom fukki kilowatt heure kilowatt heure mooy unité bi ñuy natte courant bi tant que yaa ngi foofu yaa ngi koy jënde ñaar fukk yu manqué ñaari dërëm 91 virgule naa nag bu fekkee ne yow dafa yàlla daf la dimbale nga am frigidaire am ay ventilateur li ngay consommer ci ñaari weer dina jéggi téeméeri kilowattheures yi ak fu ak juróom fukk yi mm-hmm. yaa ngi dem ba juróom euh, euh, euh, ñaari téeméer ak juróom fukk mooy deux cent cinquante kilos mais diggante téeméer ak juróom fukk bi ba ñaari téeméer ak juróom fukk bi tarif bi dafay yokk foofu dafay jóge si quatre-vingt-onze virgule dix-sept dem ci cent trente-six virgule quarante-neuf loolu boo xoolee différence boobu sax am quarante 45 xaalis ju euh, juróom euh, juróom-ñetti dërëm ak benn ay juróom-ñeenti dërëm mooy différence bi. léegi nag bu fekkee ne nag yàlla dafa dogal aussi yàlla suturaal la nga am climatiseur am fer à am machine à laver appareil yooyu dañuy lakk courant parce que maa ngi fàttali ne appareil yi gën di mën a lakk courant ci kër mooy ñi nga xam ne dafay indi lu sedd maanaam climatiseur wala réfrigérateur wala luy indi lu tàng maanaam ay chauffe-eau ay bouilloire ay micro-ondes fer à repasser yooyu dafay lakk courant donc boo yeggee ci tranche bu mag boobu nag foofu nag moom tamit tranche ba dafa gën a yokk maintenant li indi yokk bi mooy Senelec nguur gi danaan ko man dama bëgg yow nga jox sénégalais yi courant 24 heures sur 24 bu mu coupé. dama bëgg tamit xëy na paan mënul ñàkk mais bu paan amee na nga fexe ba client bi paan bi du toll du toog lu toll nangami waxtu te amul courant mu ne dama bëgg aussi dëkk yu dëkk yi nga xam ne ci àll bi lañ nekk na nga fexe ba courant bi yegg fa donc loolu mooy li nga xam ne moom la état bi di teg Senelec seneleg ne ko loolu nga bëgg pour ma mën la ko defal damaa soxla nangam ci xaalis jox ko benn montant montant bi tam dañ koy plafonné mooy li ñu wax revenu maximum autorisé léegi nag bu ko defee bu ñu waxtaanee ba jubóo ci loolu après nag xaalis boobu dañ koy tas ci client yi ak ci kilowatt heure yi noonu la ñuy def après ñu génne ne kilowatt heure bi nangam lay jar nguur gi comme ñun concessionnaire lañu ñun maanaam dañoo dénk Senelec moomul moomul courant bi état bi moom moo war a jox sénégale yi courant moo leen war a faj moo war fexe suñu doom yi jàng école donc dañ ñu dénk parce que ñun suñu xam-xam màcc na ci togg courant yóbbu ko ci clients yi jaay ko mais du suñu prérogative parce que état bi moo ñu ko dénk comme concessionnaire maintenant ñu ne état bi yow lii nga ñu sant ñun pour ñu mën ko def mu mot lii la ñu soxla ci xaalis mais bu ñu soxlaa lool si xaalis client bu nekk kilowatt heure bu nekk war nga cee fay nangam léegi nag état bi mooy xool kilowatt heure boobu est-ce que client bi attan na ko parce que moom population la wala attanu ko biñ ko fixé ba pare état bi ne leen de li ngeen fixé dafa bëri. waaye comme client bi man dama ko bëgg a jàppale dafa am loo xam ne dama ko ko ci jëlal muy subvention léegi nag noonu la Senelec daan doxe ba daaw bi 31 décembre 2022 jotee état bi daal di xoolaat ay kaakaam ne moom daal li mu doon joxe ci subvention daf cee bëgg wàññi 100 milliards mais bu wàññee 100 milliards 100 milliards boobu wàññi wuñ ko ci tarif bi mais ci li mu doon dimbalee clients yi la ko wàññi bu ko wàññee foofu nag mu ne léegi yow loolu ma wàññi delloo ko client yi donc tarif bi boo xoolee Senelec ni mu ko fixé woon fa yem mais état bi si dugaloon loxoom moo am lu mu wàññi si li mu dugaloon te cent milliards ñëpp xam nañ ne dafa xaw a bëri loolu moo indi yokk bi premièrement ñaareel bi mooy courant nii dañ koy utiliser en fonction de dafa tàng wala dafa sedd su seddee kenn du utiliser climatiseur donc période du tàngoor bu ñëwee parce que période yi ñu nekk nii dafa tàng nit ñi dañuy utiliser seen climatiseurs yi te climatiseur maa ngi fàttali ne climatiseur mooy appareil bi gën a am doole ci biir kër boo génnee machine à laver ak fer à repasser parce que climatiseur bi puissance am dafa toll ak junni ak ñaar fukk ci ay wat heure bu nekk boo ko taalee benn heure diggante onze heures ba midi lakk na benn kilowatt mooy junni ak ak téeméer ay wat loolu dañ naan la loolu mu ngi jar nangam maintenant bu fekkee yow da nga taal sa climatiseur par exemple 23 heures tëdd nelaw ba fajar nga yeewu 5 heures wala heures du matin da ngay jël nombre heure bi nga taal sa climatiseur nga multiplier ko ak kilowatt euh, puissance ay climatiseur boobu loolu moo lay jox consommation climatiseur bi donc boo ko xaymaa. climatiseur à peu près mu ngi lakk diggante soixante cinq mille ba soixante dix mille jàpp quatre vingt mille bu fekkee ni guddi ba guddi nga koy taal bu dee climatiseur un cheval cinq mooy bi gën a tuuti doole. maintenant bu fekkee ne nag da nga koy taal bëccëg léeg-léeg week-end day gën a bëri parce que climatiseur loo koy gën di taal muy gën a yokk loolu nit ñi mën nañ ko vérifier ci seen compteur mën nga ñëw nga taal sa climatiseur nga dem xool sa compteur muy dawee. boo arrêté sa climatiseur wala nga arrêté sa di nga gis ne compteur ba doon daw taxaw na. moo tax ñuy wax ne confort boo gis dafa am prix parce que ki am climatiseur moom yàlla dimbale na ko soxna si xam nga yaa ngi upp da nga tàng parce que climatiseur li mooy njëriñam daf lay fi environnement bu tàng daf la koy seralal mais loolu mu la koy serale courant ba muy tiire mooy cher mooy bëri loolu moo indi affaire bi yokk ensuite nag ñu nekk du tàngoor mais amul arnaque moom mais nag d'accord nañu ne courant dafa cher Sénégal et ñun dañuy dem si dëkk dëkkaat yi waxtaan nañu ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ci électricité ñun xam nañ ne courant Sénégal moo gën a cher courant yeneen dëkk yi te loolu tamit ñun en tant que syndicaliste vraiment ñu nekk ay consommateurs nekk ci wetu population bi ñu ngi koy mettitlu di wax ne état bi war na wut ay solution pour alléger nit ñi courant ndax courant doonatul luxe courant dañ koy jëfandikoo di ci liggéey nit day xëy am menuisier métallique dem di suude bu wàccee juróom-benn téeméer yam fay am moom lay dundee la njabootam su fekkee ne juróom-benn téeméer yi courant bi dafay jar juróomi téeméer mu war a des téeméer du am lu mu dundale njabootam donc loolu la ñuy ñaan état bi mu am mën yërmande encore amoon na ko ba fii mais xamuñu lan moo tax mu xëy xëy rek dindi cent milliards daal di man loolu dama koy tegg booy dindi nga dindi tuuti mën nga dindi vingt cinq milliards wala trente wala cinquante mais sur cent cinquante milliards nga dindi ñaari xaaj yi bàyyi fa benn bi presque bàyyeetoo dara. loolu moo indi jafe-jafe yi nit ñi sonn lool. d'accord ma poser benn question. man li ma bëgg waaw li ma bëgg a laaj. mais est-ce que leer na. waaw waaw c'est technique c'est technique. non c'est pas technique c'est terre à terre. non non li nga expliqué xam nga sénégalais bi nga xamante ni jàngul nga naan ko ay kilowatt lii moom li mu xam mooy daan na dugal 5000 5000 bi daan na def ak moom weer léegi ci benn weer dina dugal 10 000 francs loolu rek la mën a xam nan ngeen koy expliquer que matériel am yokkul te li muy consommer. di ko fay courant bëgg a gën a yokku loolu rek la mën a expliquer te euh, classe tranche yi ngeen doon wax non xaaral ma tontu la foofu xam nga nit mën nga ne man sama matériel yokkuwul waaye matériel bi boo ko taalee une heure de temps wax naa la ne benn bu nekk dooleem ñu ngi koy natt ci ñaata waxtu nga ko taal matériel bi nga taal une heure de temps ak matériel bi nga taal cinq heures de temps du benn donc mën nga am ab matériel te du yokku mais dure d'utilisation bi ni ngay taale mooy gën a bëri moom laa la wax ne bu fekkee ne sedd la doo taal sa climatiser te climatiseur bi mu si kër gi boo ko taalul du tàkk mais bu fekkee ne tàngoor la li nga koy taal moo gën a bëri donc appareil mën na bañ a yokk waaye waxtu yi nga koy taal di nga koy utiliser mooy yokk loolu mooy yokk consommation. xam climatiseur moom boo koy utile boo koy jël comme baromètre c'est pour la classe moyenne disons même la classe qui est parce que climatiseur Sénégal du n'importe qui moo koy yor. mais koo fi dégg muy muy jooy facture cent mille wala cent cinquante mille am na climatiseur. koo amul climatiseur amoo facture cent mille. léegi li may bëgg laaj sama benn question mooy comment se que ngeen defal ñu ay tranche ci woyofal bi boo jëndee du premier au dix wala au du premier au quinze di nga am tant de kilowatt bu jégee loolu boo jëndee kilowatt yi nga waroon am dafay wàññeeku nan ngeen di expliquer loolu tamit. ni ñu koy expliquer simple na. d'abord dañu war a xam ne affaire u tranche du Senelec rek lépp luy jaay SDE boo jëlee sa facture boo wëlbatee si gannaaw da ngay gis am na tranche sociale am na tranche normale am na tranche dissuasive ñetti tranche la boo demee Sonatel tamit ni ñu daan facturer c'est la même chose donc tranche yi loolu am am na ci système de facturation yépp léegi nag boo jëlee woyofal du ne boo jëndee le premier wala le dix wala le quinze dañ ne la bu weer yuy taroo à partir des premiers compteur bi nekk na zéro bu la neex mën nga jënd le 10 mën nga jënd sax le 29 mooy premier achat bi bis bi ngay njëkk a jënd si weer wi mën na bañ a nekk entre le premier et le 10 mais premier achat bi ngay def ci weer wi ma jox la exemple bu concret mooy nga jël 10 mille francs nga jënd premier achat bi 10 000 dafay jël lu ñuy wax redevance 429 francs teg ko fee boo jëlee 10 000 nga dindi si 429 dafay des 5 9571 francs après mu appliqué benn taxe bu ñuy wax taxe communale 2,5 pour cent kooku pour mairie bi la boo jëlee 2,5 pour cent nga multiplier ko par 9571 dafa lay jox 239 francs nga dindi 239 francs yu teg fële dindi 429 teg fële day des ci 10 000 boobu nga jëndoon 9331 francs 9331 francs boobu nag dañ lay wax ne ñu diviser ko ci tarif bu njëkk bi nga xam ne moo gën a yomb 91,17 francs boo jëlee 9331 nga diviser ko par 91 virgule 17 daf lay jox exactement 102 virgule 71 kilowatt heure donc yow 10 000 francs bi nga jëkk a jënd génne nañ ci redevance génne ci taxe mais li la ci dese ci ay kilowatt mu ngi tolloog 100 kilowatt heure yaa ngi comprendre ñu ne la si tranche boobu ñuy wax tranche sociale yow may nañ la nga jënd ba 150 comme may nañ la yow am nga droit ba 150 te yow li nga njëkk a jënd jox na la 102 donc si li nga am droit 48 moo la fa dese est-ce que yéen a may comprendre. ñun bu ñu ñu comprendre parce que c'est pas technique li may wax li may wax ay wolof la làkkuma tubaab. li ma comprendre daal mooy heure boo jëndee heure boo jëndee am na nee nga taxe communal am beneen taxe boo xam te ni man heure bu ma jëndee mille fay naa taxe lii fay naa taxe lee. waaw non c'est-à-dire nañ dégloonte rek. Mm. nañuy bàyyi ci xel. dama ne dama la jox exemple bu ak ay chiffres. dama ne boo jëndee ñaari junni dafa am taxe bu ñuy wax redevence bu ñuy jël redevence maanaam mooy li nga xam ne mooy permettre compteur bi boo paanee nga ne Senelec dama paan ñu ñëw dépanner la te doo fay dara. Ah bu fekkee ne sa facture dafa cher nga ne Senelec kaay leen vérifier ko te doo fay dara su fekkente ni bii da nga sa compteur dafa yàqu nga ne Senelec kaay nga changer ko te doo fay dara redevence loolu lay jëriñ 429 francs la par weer juróom euh, fukk. ak juru ak ak juróom-benni dërëm donc saa boo jëndee si weer wi rek dañ koy génne teg ko fële loolu leer na après mu am benn taxe boo xam ne dañ ne mairie bi fa nga dëkk dafa lay taalal ay lampe éclairage public lampe éclairage public boobu mairie bi yow yaa ko war a fay ak kii ak kii ak kii cinq pour cent la maanaam téeméer boo jënd dindi nañ ci ñaari 15 ak xaaj loolu leer na. loolu boo ko jëlee mu nekk euh, ñeent fukki dërëm ak juróom-ñaar li may wax ay wolof la. kon en principe le villageois devrait payer moins parce que mairie bi ngay wax mu koy tàll ay lamp am na gox yoo ay lamp yegguñu fa. si dañ fépp am lamp léegi. Ah, commune non non c'est non à dire non defal ndànk mu wax la c'est-à-dire éclairage public lampe bi mooy burle ba bi du tàkk mais mairie bi moom moo war a fexe. ba lampe bi bu bulee ñu remplacer ko waaw parce que ñoom dañoo def un benn abonnement ñu def ay ay ay poto lampe bu ñu defee ay poto lampe dafay am minuteur yi boo xam ne ca post ba lay nekk su 19 heures jotee mu taal lampe yi automatiquement su 7 heures du matin jotee mu fay mais am na zone yu amul poto lampe am na zone yoo xam te ni solaire lañuy ñuy dawee te ci àll bi la ñu nekk. waaw mais ñooñu amuñu commune xam nga kiy fay taxe communal mooy ki am ko ku nekk dans une commune. moo tax ma ni kon ñi ci àll bi kon boo xoolee taxe communale boobu waruñu leen ko amputer. non c'est-à-dire que xam nga état du Sénégal moo ne lépp luy facture du Sénélec rek lépp luy facture. amul xaaj ak seen. amul xaaj ak seen Sonatel da koy fay SDE da koy fay Sénélec da koy fay taxe bi lépp lu nit di fay da ngay jàppale commune bi pour mu fay lool ça c'est benn. ñaareel bi cest à maa ngi woon ci benn dynamique pour ngeen comprendre maa ngi woon ci exemple ku jënd ñaari junni bu ñu génnee euh, redevance bi nga xam ne juróom-ñett fukk la ak ñeent ak ñeenti dërëm bu boobaa li ciy des dafay nekk junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari dërëm 9071 francs du ma di jël les après mu génne li ñuy wax taxe communale mooy ñeent fukk ak juróom-ñetti dërëm 239. boo ko si génnee dafay def neuf mille trois cent trente et junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom benni dërëm loolu nag lañ la ne lañ la koy jaaye ci tarif bi nga xam ne moo gën a yomb tarif boobu mu ngi nekk euh, ñaar fukk yu manqué ñaari dërëm quatre-vingt-onze virgule dix-sept léegi boo jëlee neuf mille trois cent trente et un nga séddale ko par neuf mille euh, par quatre-vingt-onze virgule dix-sept daf lay jox cent deux kilowatt heure léegi nag ñu ne la yow si première tranche boobu nga xam ne dafa yomb am nga fa droit téeméer ak juróom fukki kilo te téeméer ak juróom fukki kilo yi jox nañ la cee gum téeméeri kilo ak ñaar ci prem ci ñaari junni yi nga jëkk a jënd ñaata moo la fay dese juróom-ñett kilo ak juróom-ñetti dërëm ak juróom-ñett mooy kilo kilowattheure moo lay dese foofu boo jëndaatee beneen ñaari junni beneen ñaari junni boobu dafay jëlaat taxe communale 2,5 parce que redevance benn yoon rek la koy jël si weer mu génne taxe communal bi muy juróom deux cent cinquante francs juróom fukk boo ko génnee si ñaari junni dafay des junni ak téeméer ak juróom fukki dërëm jun junni ak juróom téeméer ak juróom fukk neuf mille cinq cent neuf mille sept cent cinquante maintenant nag nga génne li nga xam ne moo la dese woon ci première tranche bi mooy quarante huit kilowatt heure yooyu boo ko appliqué daf lay jox quatre mille trois cent soixante treize juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti dërëm mais loolu dañu la jaay ñaari junni yi nga mujjee jënd bi ñu génnee taxi ba pare dafa am loo xam ne jaay nañ la ko ci njëg bu yomb mais am leneen loo xam ne mooy 5369 bi ñu ngi la koy jaay ci beneen tranche boo xam ne moo gën a cher te tranche boobu digganteem ak bu njëkk bi am na juróom-ñeenti dërëm par kilowatt heure 45 francs de différence par kilowatt heure bon donc loolu c'est très simple looloo tax boo njëkkee jënd nga am 100 kilos deuxième bi nga jënd da jënd si ñaari tarif bii njëgam dafa yomb bii njëgam dafa cher bi baax pour jënd moo gën a moins cher mooy le premier fin déedéet amul période jënd bu njëkk bi daal jënd bu njëkk bi daal ba ba ba cent cinquante kilowattheure ci lu gën a yomb lañ la ko jaay mais boo dépassé cent cinquante kilowattheure ju dépassé nga premier étage yaa ngi deuxième étage léegi doyen nee na euh, subvention état bi wàññi nañu ci cent milliards dinaa ñëw léegi ci euh, Assane Ba waaye ñu ci cent milliards donc c'est imputé aux populations dinaa ñëwaat Senelec am na benn affaire bu ma leen bëgg laaj encore seen agent yi defe naa da ngeen di am kii de réduction dix pour cent xaw ma quelque chose comme ça. nga tontu wala de. tontu doyen doogu comment ça se passe. waaw xam nga ñun fi ñuy liggéeyee. Ah. am nañ lu ñuy wax tarif préférentiel. Ah. ñun dañoo jël ay compteurs Woyofal di jënd crédit. comme kenn ku nekk fooy liggéey am nga fa benn avantage boo xam ne lié à ta fonction loolu moom war nañ ko mën a nangul nit ñi qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel ce n'est pas gratuit et ni ma la joxe sànq exemple ma ne la dans la sous-région courant bi moo gën a yomb dans la sous-région doo fay dara dañ la daan mën nga taal mille kWh doo fay mais boo dépassé 2000 kWh ngay doog a fay mais ñun benn kWh boo koy kii da nga koy jënd on a une comme kenn ku nekk fu muy liggéeyee c'est normal